الذي أسري به وعرج إلى مسجد الأقصى وإلى السماء تكريما لهذا الرسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci xéewal gi nu yàlla baaxe ba nu fekke weer wu tedd wi ñu di ko wooye rajabul fard mu bokk ci weer yi yàlla tànn jox leen orma orma jëmante weesu weer la woo xam ni yàlla dafa tere jaam yi ñu xeex ci ramadan sax li muy tedd tedd xeex nañ ca biir ramadan waaye weer wii moom yàlla nee na na ngeen tëral ngànnaay li yàlla nag moo xam lu tax bu leen tooñante bu leen ci xeex ba néew naa am lii xew ci jamono ci pays islam yi lu baree bari bu weer wi dikkee danañu xaw a dakkal ngir ragal tere gi yàlla tere lu ko waral kon jamono bu nekk war na noo diglu ndigalul borom bi subhaanahu wa taala mi nu wax ni weer wii bu ñëwee na ngeen téye seen ngànnaay bu leen xeexati doonte lislaam laaj na ngeen xeex bu leen ko defati weer wi am na lu ma ci denc ku daan tooñ bàyyil tooñ kuñ daan tooñ ngay fay wit bàyyi ko ormaale ko weer wi weer weewu kon ku yàlla dimbali nga fekke ko dana nu la wax ndokkeel nañu la ci di ñaan sunu borom bi subhaanahu wa mu fekke loonu yeneen weer yu bare bari te defal nu xiiwalu wér ak wérle ba li mu nu ci digal nu di ko def li mu nu ci tere nu di ko bàyyi kon weeru rajaba ngoog jàmbaar yi bu weer wi dikkee danañu gën a yokk lu luñ doon def ci jaamu yàlla waaye danañu gën a sori lépp luñ daan def itam ci tooñ borom bi subhaanahu wa taala kon noo ngi ndokkeel ñëpp doonte danañu mu meteetlu mitiitlu li ñu teeroo weer wii ren ci ay événement yoo xam ni dara baaxu ci weer wi ni yàlla bu leen ci tooñante bu leen ci xeex ci weer woowu ren la waxe ci famille yonent bi dencub yàlla fi mu dencoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ju rafetul borom war na koo tuub te sensé écouteur ndax dafa am ci jamono ñoo xam ne nii dañoo mën a woyafal lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñii dem ba ni guddi juddu yonent bi amul benn ngëneel su koo def ñoo ca maasele loolu boo dul boroom xam-xam nag di diglu ñooñu te doo téye saw làmmañ di nga wax njaaxum ñooña la ñuy wax ca seen biir jàkka ya ak ca seen biir diiwaan ya ci jox ñàkk jox yonent bi orma boo ko mënta bañ diglu it bul ko toxal baaxul du moom rek ko de moom nga dégg waaye jiitu woon na ay boroomi conférence wax ko wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa ay waajuram duñu ñu jullit dañoo dem safara ndax yonent bee ko wax waaw mbokk mi hadis boobu wax loolu ak ni nga yabe hadis sàngam wérul lu tee néewoo hadis boobu wérul te fi ñu daan jaareele hadis bu wéré di yépp am na fa ba ca jiitu mooy at-taarudi ma alquran weddenteeg alquran alquran yàlla wax ni duma bugal wenn xeet mukk ci àddina te yaba yonantu ba noppi ndax yàlla day bañ ku ko yey kon moo tax diggante yonantu ak moroom ma am fa diggante bu ñu tuddee fatra ka ca dund duñ ko topp ndax kenn waaru ko ndax ñooñu bokkuñu foofu bu fekkee ne nii ñooñoo ngi wan ci diine ju jëkk je ba foofu kon diggante yonent bi ak ko jiitu amul fatra ndax ñoo ñoo gën a sës amul fatra kon te fatra mënul ñàkk diggante ñaari yonent ndax looloo waral ñuy beesalaat di yónni beneen yonent bu fekkoon ni diine jooja ma ngay continuer ba léegi kon amul benn njariñ ci ñuy yónni beneen yonent bu ñax wax Muhammad kon Muhammad daa war a ñëw rek nekk ndongal yonent booba di ko leeralal waaye ba mu gisee ni lépp raaf na te ñooña fekke raaf gi te kii ab wooteem fekke ko kon dañ leen di boole ci ahlu fitro te boroom xam-xam yu maandu yo foofu lañ leen boole waaye ña nga xam ni nag fu ñu tollu ñoo ngay jéem a weddi lépp lu ñu askene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaax rawatina bu ko ulama wu suufiya waxee suufiya lu ñu wax pour ñoom wérul pour ñoom wérul dem na ba ma dégg ci ñu ni sax mag ñi xamuñu woon hadis waaye yow hadis junni at ba mu wàcceeg léegi muy ñëw ba léegi nga xam ko fu ñu ko garde woon ci dënni góor yàlla yi lañ ko garde woon góor yàlla yoo xam ne ni ñu dencee woon hadis jenn wàll ga mënoo ko téeméeri addis yu mat sax mokkaloo ko te ñi ngay wax ni xamuñu ko dañ daan mokkal nangami junni hadis ilmi ma'i ay suma yammamtu yatba'uni sadri wi'aa'un lahu laa jawfu sunduqi in kuntu fi lbeyti kaana al ilmu fihi ma'i aw kuntu fi suuqi kaana al ilmu fi suuqi kan mooy wax loolu nee na aajo woowuma bibliothèque sama dënn mooy sama bibliothèque bu ma nekkee marché bibliothèque nga marché bu ma nekkee ci kër gi bibliothèque nga ci kër na téere yi lakk kooku imaamul xasaali yoo ko waxan ku ko wax tey ku ko mën a wax tey kooku nga ni xamuñu woon xadis ah xamuñu woon xadis ala hasabi maqtaratum min al mustalahat bu fekkee ni nii mustalahat yi nga bind kerye ko te tuddee woo ko bidaa te yonent bi xamu ko woon waaye nag tudde woo ko biddaa ndax neex na la ci loolu nga wut nattukaay boo natt ba ni waa ji xamul woon hadis te waajee garde woon hadis cib dënnam ba mu ñëw tey toog sa loxo hadis nekkul woon alal fada di fa dencu di fa dencu ba léegi mu naaw ñëw abadan defu ko mbokki jurit waxam jooju mu wax te mu rëy lool mu rëy lool xanaa xamuloo ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu laal moo gën lu mu laalul yonant bii nga xam bu toogoon ci garab garab ga nekk sangu garab ya bu demee ci dëkk dëkk ba nekk sangu dëkk ya bu naanee ci teen teen ba nekk sangu teen ya lan la ñuy wuti madinatul munawwara amul benn ponk bu aj bu nekk madina ci mbooleem li nuy aji makka amul benn jaamu yàlla aj bu nekk madina te yéen ñëpp ngay dem madina lu jox boobu daraja madina wujudul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jëmm jëfa tëdd moo ko jox daraja jooju waaw jëmm ju dem ba ñu jullee ni génn na àddina muy jox suuf daraja jooju waaw biir bi mu jóge woon naka la moom yaa réere rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa dalik yonent bi moo ni yàllaa ma tànn min aslaabin taa'ira ci askan yu leer la ma tànn min abdillahi ila adnaan nee na ñoom ñëpp dañoo tedd ñoom ñëpp mësuñoo def lu bon karimun min karimin min karimin fu ñu jaar daa tedd yow nag nga ni kooku sama waajur sax a ko gën naam boo demee wax nga dëgg waaye yee waajur ñoo nu andil jëmm ju ñuy wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bee waajur moo nu andil kuy saaga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayuhuma afdal mbokki jurit yi nanu wëlbati sunuy micro am na ñoo xam ne deesu leen diglu ndax bégguñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañoo fekk seetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dundal sunna ca makkatal mukarama ñu tër leen rendi kooku bëggul ku tuddati kooku kooku nag day wut nag ay àndandoo àndandoo yee nag ñëw na ba ci biir réew mii du ñu ormaal benn yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuy tagg yonent bi ñu ni li nga wax daa ëpp yonent bi kenn mënu ko wax lu ëpp lu weesu yàlla nga lu la neex taggee ko rasulullahi ba mu des yàlla nga da ma daathu nasara fi nabiyihimu waxkum bi ma si'ta mat'an fiihi waxtakimi dafa wax la nasaraan ya wax ni diw mooy doomi diw ba ko bul ko wax yow waaye leneen loo wax rek jàpp na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mawlaana seexul xadiim wallahi bu fekke woon lii tey bakkan dina dem laxira xaw ma ban lay doon ki wax ni laqad maana لقد مان من سن المقفى محمدا يهاكي وليدا قد مدى أو سيولد mu ni fen nga te sëriñ bi daawul saaga kan moo fen mu ni ki ni bi am na ci ñi ko ji ñi jiitu woon moom wala ñiy bëgg a ñëw ku niroog moom nee na ku wax lii rek fen nga kooku lu mu laal yemu tëg lu mu laalul Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu kere bi muy tawaaf kaaba gi ba agsi ci ajarul aswad di ko fóon mu diw doj mu xool ko ni ko wallahi bu ma gisul woon rasulullahi di la fóon duma la fóon ma anta illa hajar aw doj rekk nga ndekete yonent bi kon jox na daraja aw doj yonent bi jox na ab dëkk aw doj yonent bi lu mu def barke la fu mu jóge barke la kooku de su ko foye bokk yi rawatina nag nu nekk ci jamono boo xam ni ñu ngi wax mbas mu rëy ci weer wii yàlla ni bu ci kenn tooñ kenn yow nga tooñ ci gën a rëy ci jamono bii yàlla ni bul dóor kenn nga dóor yet ci gën a rëy ba noppi nag ni nan tàllal suñuy loxo ñaan mu génne mbas mi nu muy génnee mbas mi te nu merloo ko yéen ñii ku ci ñëw sa kër di ñaanub dépense fekk ka nga bëgg gën a bëgg ca kër ga mu dóor ko mbéj saaga la du yóbbaale dara subhaanahu wa taala nag tey ñu def ko lu ko naqari ba noppi naan nanu tàllal suñuy loxo fu nu koy tàllal ak fu nu koy tàllal ki nu merloo déedéet nanu fàttaliku rasulullahi sallallahu alayhi wa weer wii ñu ngi tudde weeru rajab ñu naan weer wu màgg la mais lu ko màggal bihi usriya al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam min al masjid al haram ila masjid al aqsa da cee am liggéey bu ci yonent bi liggéey bu mu deful ci weneen weer ci weer wii la ko yàlla wooye mu yéeg asamaan yi juróom-ñaar jaar baytil maqadis ni gaa yi dem naa baytil maqadis te baytil maqadis ay weer la daan def ci diggante bi gaa yi sikki sàkka daf ko wàññi waaye fa mu jëm romb na baytul maqadis ba ñu wooyee Abubakrin Sadiq ni ko li sa waaje wax tey mënoo koo gëm ndax nee na daal baytul maqdis reer ba rek rek ni demoon naa baytul maqdis sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj ko nu mu mel mu wax leen mbedd ya wax leen koñ ya wax leen kër ya lu ko waral daa am ku farang moom ki farang moom mooy Sayyiduna Jibril mi ko dajjatil dëkk ba teg ko ci kanamam waaw kooku mbokk mi ndax daraam dina yem ak kenn waxuma la yaaye yonent bi waxuma la bàyyi yonent mais mbubbum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ la ni woon ma nga dëkk sàngam suba ñëpp dem ci dëkk ba di xooli mbu mooma te mbu yaram la ëmb waaw kay moom lu mu yoroon ci nu indi rasulullahi sallallahu alayhi ci nu may rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te wuutee nga ak imaamul Busayri moom da dañuy woon damay ndokkeel Amina moom mi nu may kii ñuy wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yemut kenn yemut kenn bokki jullit yi waaw yéege googu yàlla yéege sayyidul awwalina wal axirina ba ca moom lu ngeen ci mën a déggee dafa am lu mu koy doyee du dara lu dul bëgg koo wax dara xel ma rafet lool xel ma dara manqué wu ca maa kasabal fuaadu te itam gis ba dara manqué wu ca jàkkaarloog moom su ma danaa fa te dallaa fa kaana xaba xaw sey aw adna jige ko lool jige goo xam ne nii li ngay wax di su ko nattable te nopp ya neex na bët ya gis na mu toog jàkkaarloo kookule mu di ko déey am na lu mu ko doon déey loolu mooy lan mooy li ñu fi indi tey muy julli yi juróom xanaa bokk yi xamee ngeen ci ni kon julli rëy na de lu tax yàlla yéegéb yonentu muy xotti déelee asamaan yi ba agsi mu ni ko li ma lay doyee du dara du dul neel jaam yi nañuy julli nañu julli juróom fukki julli bis bu nekk yonent bi wéy bay wàccaat ba agsi ci yonent yàlla Muusa sëriñ Mouhamadul Fadil Mbacke radiallahu taala anhu bu ko daan nettali bu tuddee Moussa danaan dafa nekkan ab xeej ci yàlla mooy ku sañ bi mu ko nettileew yoonam mu ni ko loolu ëpp na juróom fukki julli del mu wàññil la ko sallallahu alayhi wa sallam delli mu wàññi juróom mu dellu si mu ni ko dellul di ko def ba muy juróom-ñeenti yoon mu ni ko dellul mu ni nag rus na bàyyi ci juróom yi yàlla ni ko juróom yooyu nag boo ko defee ma jox la yoolu juróom fukki yëpp ba bisub tey saa bu ngeen jullee tisbaar mel na ni julli ngeen juróom fukki julli kooku mooy wone màggayu julli ndax dañoo woo ki ñu koy jox amul intermédiaire du jibril du keneen ni ko kaay ma wax la ndax li ma lay wax bëgguma dara faay ci jege ma lool te ubbi sa nopp bu baax ma jox la li ma lay jox lii moom bul ko fàtteeti loola moo doon julli juróom kenn du ci wuute amul benn boroom xam-xam li wuute yi bari bari bari bari amul ku ni julli ñeent la wala julli ñett la kenn wuutewu ci ndax ki ko doon jël daf koo jël direct netti li nu ko jëf ko nu gis digee ci tëkkoo ci sallallahu alayhi wa sallam nee na ku taxawal julli juróom mii yaa taxawal lislaam ba mu ni sàng waaye ku ko bàyyi yaa màbbul islaam ndax nee na moom rekk ay lislaam jàpp naa ni di ngeen jullee ngeen tuuba parce que ngeen a jullee tuuba ca jumaay ja am na xutba boo xam ne cheikh mohamadul fadil moo ko bind xutba bu arabe bu neex boo xam ne ni keroog bi muy ubbi jumaa yi tuuba boroom xam-xam yi àddina bépp teew keroog la jàng xutba boobu la xutba bu yéeme la waaye xutba ba danga nga ca dégg mu ni la bu ma lay misaal julli ni mu demee ci diine ni bopp mel ci nit ndax mas ngeen a gis ku ñu dagg bopp ba ñu di ko defari abadan boo daggee bopp bi lépp dagg na moom kese mooy jaamu yàlla goo xam ni boo ko bàyyee yoon rey la jàng leen tasawudu sixaar jàng ngeen ko Sëriñ Tuubaa wax na fa ku bàyyi julli ci ñaari anam ki ko bàyyi ngir weddi ko rek moom nee na du dara nee na kooku moom bu ca dëgëree dañ ko war a rey ki ko bàyyi ngir tàyyeel nag dañ ko war a waar rek te di ko digal ay fan bu nangoo baax na bu nanguwul ñu soog koo yóbbu ci yoon ku jëkk ki nag nee na du jullit moom ndax daa weddi julli moom bu dee dañ koy gasum kan rek dugal fa waaye bu ko kenn jullee bu ko kenn taxaw même ki ci desit bu ñu ko dee jullit ñu baax ñi bu ñu fa dem nag gaa yu baax yi bu fa dem nañ ko moytu loolu mooy ndigalul sëriñ Bamba kon julli loolu rek yoonu yonent bi dem ca asamaan tegtale na ak màggayam waaye bâtiment bii tegtale na màggaayu julli bokk yi bâtiment bii ñaata milliar lu muy jariñ ñu ni julli moom képp ci àddina bi mooy ki nga xam ni mooy jaamu yàlla gi gën a baaxum néeg ci àddina bi amul genn jaamu yàlla gu mel noonu du koor tabaxaluñ ko dara du aj du asaka du lenn julli mooy ki nga xam ne moom la wutal néeg bu rëy ni ko nag dee ca dam te lu mu gën a rafet rek moo gën wallahi gaa yi doon jëkkante di sotti seen alal yi ca néeg ya xam gu ñu xam nu julli toll moo taxoon boo demee ca digg péncum Touba bâtiment ba fa gën a rëy jullee ko moom kenn defaatugu fa bâtiment bu na toll fii ci ndakaaru noonu beneen dëkk boo dem noonu la kon li muy tekki kooku nee na kii moo màgg kon weer wi mooy weeru julli mooy weer wi nga xam ni day tegtalee màggaayu julli ba tax moom mu amaale ci màggaay goo xam ne nii àddina bépp jox nañ ko weeru rajab mbokki jullit yi xanaa moos bu ñu lenee julli màgg na nga toog ci milliard jaratul wax bu ñu lenee julli màgg na nga fekk jëmm joo xam ne moo nu gën fuuf ñu di ko wooyee Mawlana Cheikhul Qadim mu nekkoon chiaaram lan mooy chiaar lu muy def jullee cay jëkk sama bokki diiwaan kër yi sax bu ñuy nettali ay waxam léeg-léeg ñu ni bañ ko laajee nangam mu julli ñaar rakka ni ma laaj ko sama borom yaa ko wax de ndekete kon moom julli mooy màndarga mi muy feeñale léppam Mawlana Cheikh Mouhamadul Basir radiallahu taala anhu nee na dafa fekk sëriñ bi tëdd bis yaram wi libët ba mu metti lool ba àgg ci ñu di ko lalal geeganaay waxtu wa jot nee na ma dem jàkka ja ñu liqaam sëriñ bi génn jiite man bon dellu see ma laaj ni ko xanaa du yow lañ doon yëkkati léegi mu ne wallahi feebar ñimewul sama yaram ginnaaw bu xasee dégg allahu akbar mbokk mi kon loo mën a déggee ci loolu ndax loolu genn woyofal mën nga ko cee dégg abadan mënul nekk xanaa kay nga topp sa bànneex rek waaye la mu ca bind ak la mu ca wax ci moytuloo nit ñi sàggane julli ba àgg ci ni yow mi nga xam ni bu julli jotee da koy këpp-këpp rek tiim bu ëllëgee liñ la ciy faye mooy safara moom la la ciy faye sëriñ bee ko wax waman bila tuhrin yusalli abada bila daruratin fasoo fisqin bada wala lahu bi zalika tayammumi yowma alqiyaamati siwa jahannami waxuma ko moo ko wax te ay waxam laa gën a gëm ci kudul moom nag sunu sëriñ ñu ko jàngaloon moom Mawlana Cheikh Souhaïbou yal na ko yàlla fayal da daan wax ni dee leen dëgër bopp lu sëriñ bi xas wax ku wax lu wuuteeg moom romb leen ko te dem wax na dëgg nag moom keppa kat moom képp a woon yëf yu neex yi ku ne mën nga cee bàkku waaye keroog bi muy taxaw fii ci géej gi